wala Jean aha Jean da ngay ñibbi kan moo la indi fii ku la fi indi fawul funnaange amoon yow hirnaange ina fow fawlu funnaange fow fawlu funnaange micro fow fawlu funnaange amoru yow hirnaange inna allaha anna allaha bashiran jinna mono koɓi tolotege talatege allahn kantan annabi kantan ley uddi dow uddi hakkude nden jidi kiɗon kod jinna kiti saya boloya saya wonande allah saginande allahu hulu allahu samadu alfayu jayri alfayu batinu kurjinna sojinna ulde koroyanna nabiyanna nabi ndure ndurete sojinna so sojinna kiisi kaasa koye kaasi samsi samarushi samsi samarushi samsi samarushi monokobi tolotege talatege allahn kantan annabi kantan ley uddi dɔw udi hakkunden ki jidi kiɗon kodjunna kiti saya boloya saya wonande allah saginande allahu hulu allahu samadu alfayu jayri alfayu batino korjinna sojinna olde koroyanna nabiyanna nabi ndu e eh, durate sojinna so sojinna kiisi kaasa koye kaasi samsi sama ruushi samsi sama ruushi samsi sama ruushi samsi sama ruushi Samsi samarushi Samsi samarushi Samsi samarushi monokobi tolotege talatege allan kantan annabi kantan ley uddi dow uddi monokobi monokobi tolotege talatege allan kantan annabi kantan jinna yow la kan yow la Jean lan moo tax topp xale bu jigéen bi da nga kaa bëgg ba muy nekk xale aha loolu ñaata at la ah ba muy nekk xale bu ndaw loolu ak léegi yàgg na. loolu loo ko musa yàqal moom xale bu jigéen bi bu naree def lu baax nga yàqal ko bu naree am jëkkër nga yàqal ko ma bàyyi moom moom xale bu jigéen bi bu bëggee am jëkkër yàqal ko aha lu mu bëgg ko la yàgg nga ak moom lan ak lan nga koy defloo lan nga koy defloo day day toog ci kër gi journée du génn aha xale bu mu am nga yàqal ko ko ak lan aha hmm. waxal jural na la benn doom doom bi gaañu dégg nga lu wax mu ne jural na ko benn doom doom bi gaañu ah jural na la benn doom doom bi gaañu ah jural na la benn doom doom bi gaañu jural na la benn doom doom bi gaañu. yaa ngi bëgg amaat ak moom doom. waaw waaw. yaa ngi yàqal. dégg euh, mbokk yi nee na fexe na ba xale bu jigéen bi am na ak moom benn doom moom jinne bi nee na jin doom bi dafa gaañu xam nga ne lii lu doy waar la. nee na xale bu jigéen bu buggee am jëkkër moo koy tere am jëkkër xam ngeen ne lii lu doywaar la lu yéeme la lu yéeme la ñoom nag dañoo dugg si léegi ci néeg bi rek ñu commencé di di daanu di def ay manière si laa woo caméraman yi ñu ñëw léegi léegi la ñu dugg si si néeg bi kese après ne dañuy dem dañuy dem ma xam ne ne ñii kat jinne yi la. eh sigil jàkkaarloo ak man xool ma ci bët ñaata at nga am. 22 ans nga am. yow kan. man Jean. yow Jean. 22 ans nga am. xale bu jigéen bi ñaata at la am. 13 hmm, ans. kan kii 13 ans la am. xale bu jigéen bi 13 ans la am. 13 <laughs> ans la am. ah. ñaata. ñaata lay am ñaataat. Hmm. xale bu jigéen bi ñaataat lay am. 13 ans. nee na xale bu jigéen bi 13 ans la am jinne bi am na 22 ans 13 ans la wax xam ngeen ne lii lu doy waar la 13 xool xoolu fi jàkkaarloog man nga ne xale bu jigéen bi 13 ans lay am 13 ans 13 ans. léegi yow ban melukaan nga yor. hé ban melukaan nga man waaw su ma neexee doon xale bu ma neexee doon mag. Ah, ma ñëw. ma ne su la neexee. doon mag su ma neexee doon xale si côté am. bu la neexee nekk mag bu la neexee nekk xale. waaw. Ah. waaw nekk mag bu la nekk xale. waaw si côté am. si xale bi waaw. waaw yow góor nga wala jigéen nga. man góor laa. yow góor nga. Jean laa tudd. ah Jean. waaw man sama sama famille ñëpp xam nañ kii. sa famille yëpp xam nañ xale bu jigéen. waaw. waaw. yow euh, mais. nee na sa fami famille ah, lal la ay jinne wala ay nit. ay jinne. ah jinne. waaw sa famille fu nekk. deux heures la dox ma fekk ko ci mbedd. deux heures la dox nga fekk ci mbedd. waaw mu ci fan ci fan. ban dëkk. Kafountine. Kafountine Casamance. parce que xale bi daa demoon di yóbbu añ. dafa demoon di yóbbu añ. waaw. waa Casamance Kafunti jàpp nañ jinne bu jóge Casamance bu tudd Jean. waaw dégg ngeen waa Casamance ñoo ngi nuyu waa Casamance yëpp ndeysaan léegi léegi nii dafa am ku ma woo Casamance benn xale bu jigéen dafa ma woo di ma nuyu ma ne la xoola da euh, dafa raccroché rek mel ni lu raccroché ndeysaan di jooy mu ne Thierno Moule laa jot muy jooy macha allah entrée entrée billaay affaire bu garaaw sax kon macha allah nit ñi bëgg nañ ma nit ñi am na fuñ ma teg. billaay walaay mu ne magam bi Thierno Moule laa jot rek ndeysaan ma gis mu dégg ma dégg muy jooy affaire bu yéem affaire bi daf ma maanaam dafa daw sama yaram quoi bilaay Casamance la ma woo dafa dafa mel ni lu coupé sax ndekete coupé xam nga mu ne magam bi mu Moule laa jot rek mu commencé di jooy ma ne non ndeysaan gis nga macha allah am na ñu ma bëgg am na ñu may woo di ma ñaanal di ma sant di ma gërëm am na ñu ma bëgg vraiment léegi nag kenn bu la bëggee maanaa xaw ma nu ñu koy waxee ci olof kenn ku la bëgg jar naa daw. ba dee ngir fukk ñu la bañ kon ñi ma bëgg saa su ne maa yéen dañ may envoyé ay message ay ojo di ma sant di ma gërëm di ma ñaanal yàlla fii ba Amérique France Italie Allemagne di ma ñaanal yàlla nee nañ ma gis nañ liggéey bu may def macha allah ñu ne gis nañ liggéey bu rafet bi may def kon vraiment macha allah yéen ñi ma bëgg maa ngi leen di ñaanal saa su ne yal na yàlla defar leen jàmm yàlla yàlla yokk seen xéewal yàlla leen yàlla sàmm aar leen. yéen ñi ma bëgg maak yéen ba aljanna incha allah Thierno Moule ku ko bëgg yow ak moom ba aljanna loolu moom ngeen xam ko yéen ñi ma bëgg laa wax yéen yéen ak man ba aljanna sama fans yi sama soppe su ma am di jàmm su ma yi tey affaire boobu dafa maa touse dafa maa woo ndeysaan kontaan mu mu mu décroché décroché xoola di jooy affaire bu doy waar macha allah ndeysaan yàlla na ko yàlla defaral jàmm gis nga yàlla lu muy def ma jàpp nag jinne Casamance tamit kon gis nga affaire bi lu yéeme la yow nga ne yow Jean xale bu jigéen bi treize ans la am hmm. ah? nga xool ma lan moo tax nga topp kii da nga kaa nga ko ci àdduna gis ngeen jinne bi moo ngi muur kanamam pour bañ ma gis sant yàlla lii yëpp nag suñu borom la macha allah sant suñu borom bu baax a baax nga ne xale bu jigéen bi lan. ah oui. bëgg. da koo bëgg. waaw. bëgg ko. sigil xam nga xam nga nga Thierno Moule Sow. munuma laa xool sax lu tax munoo ma xool. buggoo ma. déedéet bugguma di la xool. lu tax bëggoo may sonal. lu tax ma lay sonal. lu nga àndal. nga ne. lu nga àndal. lan laa àndal. xamu ko. lan laa àndal. xamu ko. xamoo ko. déedéet. ngeen nee na xool ndax su ma xoolee day sonn ndax li ma àndal ku tedd gi laa àndal suñu borom ànd ak Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa moo nekk sama bët yi moo nekk sama biir bët yi. Oh. umaru yawhir nangue inna allaha anna allaha billibadi bashiran jinna mono kobi tolotege talatege allahn kantan annabi kantan ley uddi do uddi hakkude nde jiɗi kidon kod jinna kiti saya bonoya saya wonande allah saginande allahu hulu allahu samadu alfayu jari alfayu batinu kurjinna sojinna ulde koroyanna nabi yanna nabi duray duray te sojinna so sojinna kisi kata koye kaasi samsi sama ruusi jinna samsi sama ruusi jinna jëlle ñaar loxo ñaar loxo yi def ko ci baat bi jinne ngeen def ko ci baat bi ngeen xot ko ñaar loxo yi ñaar loxo ci baat bi ñaar loxo yi ci baat bi jinne yi bismillah bismillah bismillah ñaari loxo yi ñaari loxo yi ci baat bi ñaari loxo yi ci baat bi ñaari loxo yi ci baat bi jinne yi jël leen ñaari loxo yi ngeen teg ko ci baat bi jinne yi jinne yi bismillah ñaari loxo yi ci baat bi ñaari loxo yi ci baat bi jinne yi ñaari loxo yi ci baat bi jinne yi xoj xoj ñaari loxo yi ñaari loxo yi ci baat bi ñaari loxo yi ci baat bi mesa mesa ñaari loxo yi ci baat bi ci baat bi jinne yi ñaari loxo yi ci baat bi ci baat bi ci baat bi attaqué approché attaqué approché jinna haɓɓe mo nangue mo attaqué approché approché approché approché approché monokobi tolotegi talategi allahn kantan annabi kantan ley uddi dow uddi hakkude nden jidi kidon kod jinna monokobi tolotegi talategi allahn kantan annabi kantan ley uddi dow uddi hakkude nden allah saginande allah samadu alfawi jayri alfawi bat batin hujjinna sojinna uldi koro yanna nabi yanna nabi ndure eh, durete sojinna so sojinna kiisi kaasa koye kaasi samsi samo ruusi samsi samo samsi samo samsi samo jinna mono kobi tono tegi tala allah kantan annabi kantan allah kantan annabi kantan hulu allahu samadu alfayu jayri alfayu batinu kurjinna sojinna uldi koro yanna nabi yanna nabi ndure dure durete sojinna so sojinna kiisi kaasa koye kaasi samsi somo Samsi Samarusi Samsi Samarusi Samsi Samarusi Samsi Samarusi Samsi Samarusi Samsi Samarusi Samsi Samarusi Samsi Samarusi Samsi Samarusi monoko bi tolotegi talategi allan kanta annabi kanta ley yuddi dow uddi hakkunde nen jidi kidon kogginna kiti saya boloya saya wonande allah saginande allah huɗo allah samadu alfayu jeeri alfayu batil kurjinna sojinna ulli kola yanna nabi yanna nabi dure durete sojinna so sojinna kiisi kaasa koye kaasi samsi samoruusi samsi samoruusi samsi samoruusi samsi samoruusi samsi samoruusi samsi samoruusi samsi samoruusi samsi samoruusi samsi samoruusi samsi samoruusi samsi samoruusi samsi samoruusi samsi sama ruusi sama ruusi sama ruusi sama ruusi sama ruusi samsi sama ruusi sama ruusi sama ruusi samsi sama ruusi samsi sama ruusi samsi sama ruusi mono ko bi tono tegi tala tegi allah kantan annabi kantan lay uddi do uddi hakkunde nden jidi kidon kojjinna sama ruusi ci film bi dama gis bul di sant da ngay téye rek comme bul di sant dégg nga bul di sant ngeen kii tey nu mu toilettoo ndeysaan jekk toog ah macha allah gis ngeen ko xammee ngeen ko semaine bee nu mu sonnee woon ah gis ngeen tey dafa toilette ndeysaan jekk toog ah macha allah saam sama ruusi saam sama ruusi sama ruusi monokoɓe tolotegi talategi allah kantan annabi kantan ley uddi dow uddi hakkude nenji di kiɗon kojjinna kiti saya boloya saya wonande allah saginande allahu hulo allahu samadu alfayu jeeri alfayu batinu kurjinna sojinna uldi koro yanna nabi yanna nabi ndure ndurete sojinna so sojinna kiisi kaasa koye kaasi samsi somo samsi somo samsi somo samsi somo atake apro approché attaqué approché attaqué approché jinna haɓɓemo jinna nanguemo attaqué approché attaqué approché jahase jahase jahase jahase jahase jahase jahase jahase jahase jahase mélangé jahase mélangé jahase mélangé jahase mélangé jahase jahase jahase liranmo ñi <laughs> na war nañ di am ay micro yu baax quoi xam nga yuuxu bi nii ma escanté après waaw. la kan. eh Anne Hombo yow la kan. yow la kan. eh Anne Hombo. ko Anne Hombo. jidda jidda no weete kanko an jidda an ka honɗum gis nga nee na jidda la xam nga wax na beneen tur he an an ka honɗum ah an ka hollum yawlan ga he yawlan ga yawlan ga war nañ am micro bu baax mono ko bi tolotegi talategi allah kan tan annabi kan tan ley uddi dow uddi hakkunde nden jidi kidon kojjinna kiti saya boloya saya wonande allah saginande allah hulu allah samadu alfayi jeyri alfayi batin kurjinna sojinna ulde koro nabi yanna nabi dure durete sojinna so sojinna kiisi kaasa koye kaasi samsi samo samsi samo samsi samo samsi samo Samorusi Samsi Samorusi Samsi Samorusi Samsi Samorusi Samorusi xale bu jigéen bi am na 13 ans xoolal 13 ans la am jinne bi dugg ko nar a yàq avenir am maanaam 13 ans la am 13 ans. monokobi tolotegi talaategi allah kantan annabi kantan allah annabi kantan ley uddi bo uddi hakkulle len yidi kiɗon kon jinna kiti saya boloya saya wonande allah saginande allahu hulu allahu alo alo yokkal volume bi monokobi tolotege talatege allah kantan annabi kantan ley uddi dow uddi hakkunde len jidi nga ne. nga ne. yàq na sama doom. yow la kan. man la Jean. yaay sama yaay a ngi nii taxaw. an sa yaay. moo ngi nii. yow ak sa yaay yéen ñëpp laay jàpp. Marie Madeleine wuyul. sa yaay mooy Marie Madeleine. waaw. xale bu jigéen bi nga jàpp ñaata at la am. 13 xam nga ne gis nga nee na kii 13 ans la am maanaam kii mineur la 13 la am gis ngeen. 13 moom Casamance Casamance la jógee. Casamance volume bi ñëw Casamance la jógee. gis ngeen. monoko dolotege talatege allah kan tan annabi kan dow uddi dow uddi hakkunde nde jidi kiɗon kogginna kiti saya boloya saya wonande allah saginande allahu hulu allah samadu hulu allah samadu alfayu jeyi alfayu batino kurjinna sojinna ulli kono yanna nabi yanna nabi dure dure de sojinna so sojinna kiisi kasa kiisi kasa koye kaasi kiisi kasa koye kaasi samsi sama samsi sama ruusi sama ruusi sama ruusi sama ruusi mono kobi tono tegi tala tegi annabi kanta ley uddi yo uddi hakkude leydi di kuɗon kontinno kiti saya boloya saya wonande allah saginande allahu hulu allahu samadu alfawi jeyi alfawi batin kurjinna sojinna ulli koro nabi yanna nabi dure dure sojinna sojinna kiisi kaasa koye kaasi nga ne yow treize ans treize ans la xale bu jigéen bi am. waaw naa ko bàyyi sonn naa. mën nga ko bàyyi. mais doom bu mu yor moo tax mënuma koo bàyyi. moom dafa am doom. dafa ëmb nii. kan moo ko ëmbal. man. yow kan. Jean. yow waaw sama yaay neen moom sa sonn na jàppale na ma ba sonn. xale bu jigéen bi treize ans la am jinne bi ko ëmbal vingt vingt deux ans la am gis ngeen loolu lu doy waar la treize ans la am jinne bi moo ko ëmbal gis ngeen. lu grave la mbokk yi ah si ngeen lii treize ans la am Casamance la jóge macha allah fu ñu ñi yaakaar ne xam-xam fa la nekk foofu la jóge ñëw fii Dakaaru Njaay le kër kër xalif général des Djinn Thierno Moule Soundiata Keita gis ngeen macha allah fan yi moom jinne yi dañuy ñëw rek macha allah gars yi di démentir gars yi rek jinne yi ñooy démentir léegi ah gis ngeen loolu gis ngeen. monogobi tolotege talatege allah kan tan annabi kan tan ley uddi dow uddi hakkullede jidi kidan kojjinna kiti saya boloya saya wonande allah allah saginande allahu allah jomiraɗo hulu allah jomiraɗo hulu allah hulu allah jomiraɗo hulu allah jomiraɗo hulu allah jomiraɗo hulu allah jomiraɗo hulu allah léegi yow pare nga pour bàyyi xale bu jigéen bi. waaw. moom sa yaay lan la moom. mari ma leen jinne la moom tamit. sa yaay la jur waaw. la. mooy <laughs> sa yaay na la dimbali <laughs> je suis <laughs> la xalif général day jinne sa yaay du du fi mën dara tous. gis ngeen mbokk yi lu grave Sénégal moo ngi nii àdduna moo ngi nii jinne yi dañoo bari di yàqal nit ñi. léegi kenn xàmmeetul kenn xale yi jigéen ñi amatuñu jàmm borom kër yi amatuñu jàmm père de famille maanaam daal Sénégal a ngi noonu macha allah jinne yi dañuy dugg nit ñi di leen yóbbu ci baar yi ñuy naan sàngara di màndi di càggatu di def yi bon fekk ni jinne yi ñoo leen di def loolu gis nga jinne lu doy waar la lu garaaw la macha allah mais yàlla nag wàccee nag ku mel ni Thierno Moule Sow nga xamante ne moo ngi fii jinne bi mu jàpp da lay duma tuubal la dugal la ci diine loolu nag. maanaam macha allah suñu boroom la dañuy sant yàlla bu baax di julli ci yonente bi gis ngeen macha allahu xale bu jigéen bi 13 ans la am jinne bi 22 ans nee na Casamance la ko dugg dañ ko yónni woon mu daal di koy dugg macha allah léegi indi ma 16 ma laaj jinne bi c'est important non c'est bon c'est bon bàyyi ko mu toog ok léegi yow nga ne maanaam. xale bu jigéen bi da nga koo ah? waaw. liir bi moom maanaam liir baa ngi ci biir bi walla. juddoogul. ñaata weer la sa amul léegi mu wasin de yàgg na tuuti. léegi waaw. ëmb jinne moom ñaata weer lay doon. benn at. mu doog wasin. mais moom du gis xale bi ndekete. du gis waaw. gis xale bi. du ko gis. moom du xam ne nag am na doom. waaw. du ko am. xam mais ween bi dégg des fois day senn. ah parfois weenam day waaw bu mu bu mu ëmbee noonu ba am doom ba doom bi dellu si la commencé di gis ween yi di senn mais xamul woon ma yërëm ko. léegi euh, moom maanaam dégg nga wax. maanaam bu mu ëmbee xam nga daf ko njëkkoon ëmbal doom bi dellu ëmbaloon na ko doom bi dellu ah ëmbaloon na ko doom bi dellu léegi mu ne ween bi di senn maanaam lu garaaw lay expliquer moom jinne bi c'est important nit yi xam xam nga man question yi may laaj nii dafa baax parce que nit ñi dañ ma naan Thierno merci yow yaa ngi yee parce que question yi ngay laaj jinne yi dafa am solo parce que man li may laaj yëpp man xam naa quoi ah. mais pour nit ñi yee nit ñi loolu moo waral may nekk di laaj ay question parce que xam nga jinne boo nekkee ak ñoom xam seen secret yu bari mais pour ba ba euh, dimbali doomu aadama yi ak askan bi loolu moo waral may faral di laajte question yi ah léegi moom xale bu jigéen bi am na amagul jëkkër amagul jëkkër ñu ko ñëw ñaan si yëpp xale bi daa bañ ñu ko ñëw ñaan si yëpp dafa bañ te tayu ko te tayu ko tayu ko kan moo waral loolu man ndax maa ko njëkk ba sigil da ngay maa ko njëkk a bëgg. yaa njëkk a bëgg. waaw. sigil da ngay siggi yaa ko njëkk a bëgg. waaw. léegi yow xale bi lan ak lan nga ko yàqal képp ku ñëw ñaan si ko nga yàqal ko ak lan. ma yàqal ko ak lu mu bëgg ci àddunaam di liggéey sax ma ko ko yàqal bañ rek muy génn. ak lu mu bëgg ci àddunaam yëpp nga yàqal ko ko. waaw. ok léegi damay def lu bon. lu ah. xalaat bu bon ci xelam. ak xalaat yi mel nan. bu muy dem ay boîte di ñëw. waaw mais xale bi après. day mel ni du dem ma mere ko loolu tax lu mu bëgg ci ay boîte waaw damay toog day toog des fois moom kese mel ni ni tey wax ak moom su ko ne dangay dem boîte pour nga am xaalis yooyu yëpp mais xale bi dem na benn jour mu dem boîte bu mu demee boîte benn xale bu góor bu am alal di ko topp di ko topp waaw na sigil boo ma xoolul gannaaw yéen mënoo leen ma xool sigil ma yàqal ko waaw waaw bul dem ànd xale bu góor bi. nga ne. bul dem ànd xale bu góor bi bul dem kii dafa am alal. waaw mm, xale bi ñibbi seen kër toog dematul fenn. Ah. waaw. Ah. loolu yëpp def naa ko. def nga ko. waaw. mbaar doo xiir ci góor ñi rek. waaw ci góor ni mais ab ci góor ñi. après du egg. du dem bugguma kenn di xam lu mu woddoo. ah mm. kon doo ko xiir ci góor ñi. da koy xiir waaye du dem. waa bu demee bay bëgg a dem. waaw day am xel ñaar après man damay defaat xel bi ëlbatiku mu ñibbi seen kër. parce que c'est important. ñu bëri ñoo ngi yàqu di sànku comme comme lii la ñu bëri ñoo ngi sànku euh, maanaam jinne moo lay dugg di la xiirloo ci ay góor ngay dem ci ay góor wala mu lay xiirloo ci ay sàngara ngay naan sàngara wala ngay tux gis ngeen léegi senegal jigéen ñu bari dañuy tux xale yu jigéen ñi dañuy tux. ñi dañuy naan ñi dañuy dem ci baar yi te loolu en général du seen sago du seen tayeef dafa am ab kàccoor seytaane bu nekk ci ñoom di leen xiir sàngara demal naan demal naan mu nekk sa xel ngay dem naan demal tux demal tux nga dem di tux hmm, demal nga def lu bon nga dem def lu bon fekk maanaam tayoo ko fekk ne nekkul sa sago c'est important ñu dimbali xale yi dimbali jeunesse bi ndax jinne yi dañoo bari te jinne yi dañu am doole am kàttan yàlla may na leen pouvoir yàlla may na leen doole bi nga xamante ne bu ñu duggee nit ki lu ñu bëgg dañ la koy defloo lu ñu la fu ñu la bëgg a yóbbu yóbbu la fa soo amul ndimbalu yàlla léegi nag yàlla wàccee na ku mel ni Thierno Moule Sow yàlla mënal la Thierno Moule mu mënal jinne yi ci kàttan suñu borom moo waral gis nga saa su ne problème bu ñu am rek dañuy daw ñëw ci kattanu suñu borom bu ñu ñëwee ngeen gis ni may jëflante ak jinne yi maanaam li ñuy wax weddi gis bokk ci mbokk yi lii defe naa ne lu leer la saa su ne yéen a ngi gis vidéo yi yéen a ngi topp ci YouTube bi. yeneen ñu topp ci internet bi ci Facebook bi na Moule moo ngi jàpp ay jinne di leen tuubal di leen dugal ci diine l'islam lii nag ñun dañ ci sant yàlla sant suñu borom maanaam bu ñu ci amul fayu nit amul ci ngërëmu nit dañ ci am suñu ngërëmu suñu borom macha allah ndax nit dafa gàtt xel bu affaire am baaxee fàtte na du ñëpp nag am na nga xamante ne dinañ def reconnaissance ñenn ñi dañuy fàtte kon nag dañuy sant yàlla bu baax di julli ci yonente bi salaa salaam ba ñu yàlla joxe doole jox ñu kattan jox ñu pouvoir ba ñuy mën a jàpp jinne yi di leen tuubal di leen dugal ci diine lislaam gis ngeen xale bu jigéen bi 13 ans la am xawma ko xaw ma am xaw ma fu mu jógee dañuy ñëw sama kër ñu dugg sama néeg moom ak keneen ki beneen xaritam bi xaw ma yaa ngi dégg ay xale yu ndaw lañu gis nga ñëw daanu foofu bëgg a daw génn ma ne leen non fii kay génn amatul gannaaw ñëw ngeen ba seen jinne déclenché na ma daal di wax ak gis ngeen mbokk yi lu doy waar la lu garaaw la waaw léegi yow Jean waaw sigil na sigil da ngay sigil nga wax ñi ñi dégg la bàyyi ma ma ñibbi ma bàyyi la nga ñibbi waaw bu ma la bàyyee nga ñibbi da ngay delluwaat ci xale bu jigéen bi waaw damay delluwaat kay waaw léegi nag du ma la bàyyee nga ñibbi yow xas nga ba ñëw fii ba pare c'est fini yow fii ngay des kenn man yow fii ngay des. déedéet man damay ñibbi ànd ak moom yow doo ànd ak moom yow kay xas nga ba dugg sama kër c'est fini yow fii ngay des. pour lan. pour lan ah. loo bëgg. man kay bëgguma li ma bëgg kay xam nga ko mooy nga danga koy bàyyi rek. loo bëgg. li ma bëgg mooy nga bàyyi ko. mën naa laa jox lépp ci àdduna nga bàyyi ma xale bu ko xale bi comme lan comme lan exemple. sama pouvoir ak sama man man pouvoir bu demee nag yow maa la ëpp pouvoir yow mi ma yow mi man ñu la kay. maa la ëpp pouvoir. da nga maa mënee si beneen côté. ci ban côté laa la. leneen. la laa la ëppale wax ma rek. xam nga ko. non man xaw ko wax ma. lan laa la ëppale lan. ëppale nga ma lu bari. lan laa la ëppale. si jàng yooyu ngay jàng di wax. yan jàng. ak leer boobu nekk sa kanam. leer bi nekk sama fii sa sama fii. waaw ah. waaw. waaw mun naa laa jox lu ëpp lool nga bàyyi ma ma dem ak xale bi. boo boo ma mënoon jox lu ëpp lool du ma la téye ah. waaw ah ma jox li ma la téye lu tax ma téye nga ma ko jox. waaw ah yow munoo ma jox lu lu ma la téye li tax ma téye la yow loolu ko jox kooku suñu borom moo ma ko jox. waaw loolu dëgg la kooku du mbindeef du jinne du nit. waaw loolu dëgg la kooku dama ko juddwaale. loolu dëgg la ah. léegi lan ak lan nga ma bëggoon jox ak lu mel na lay côté boobu moom d'accord ma foofu ak lan loo ma bëgg a jox. mën naa laa jox sama rakk yeeg sama yaay ñu ñëw sa côté. sa rakk yi ak sa yaay. waaw. mais yow da bëgg a tayle sa rakk ak sa yaay. waaw pour ma bàyyil. waaw. non man fii fii la jinne buujoo jinne fii la bare. fii mm. la jinne bare. waaye jinne moom fii daf fi bare. waaye xale bu jigéen mënu koo bàyyi de. ah kooku de moom da koy bàyyi. ndax ndax lan ndax dugg nga sama kër dugg nga kër xalif général des jinne hmm, maanaam loolu dëgg la kenn ngay dégg ci àdduna bi ñu naan xalif général des jinne hmm. kenn kenn ba adduna sosoo ba tey koo dégg ñu ne xalif général des jinne kooku bu laaj Thierno Moule la loolu loolu la yàlla dogal maanaam xalif général des jinne kooku kenn la kenn kooku kenn la mooy kenn ki rek xalif général de jinne kooku kenn la yàlla dogal actuellement muy dund muy man waaw léeg-léeg xalif ba sonn baare nga ko ba sonn mhm. pour bu mu ñëw fii waaw mu ne day gunge rek moom ñëwul mu ne day gunge waaw ko mu ñëw pour nga bàyyi ko mu ñëw ak lan aussi tere naa ko ñu dem waaw mu ne xel bi di dem waaye ku mu doon àndal moo dëgër bopp ku mu doon àndal moo dëgër bopp waaw kooko ngi ne moom it jinne la gis nga ko ok léegi yow. xale bu jigéen bi maanaam lan nga ko gën a yàqal ci adunaam li nga xamante ne moom naqari na ko. bëgg na jàngam. ak salon coiffure bu mu doon def. moom rek la doon rêve. waaw. yàqal naa ko ko kooku bàyyi na ko. def naa ko ko ci xelam mu bàyyi xale bi. waaw mu dem bàyyi ko du ko xool du ko jox dara. bu mu jàngee eggali loo xamante ne ci àddunaam dina ko def mu tekki mm-hmm. yooyu yëpp baare naa ko baare nga waaw xale bi nag borom wërsëg la de borom wërsëg la waaye munul dem tax man munul dem ngir yow waaw mbokk yi gis ngeen kii xamuñu ko xamuñu fu mu jóge ba ñu waxee ñu ne Casamance la jóge ñoom ñaar lañu ay xale yu jigéen ñu ñëw fii ba ñu ñëwee dugg sama néeg dañoo dugg rek commencé changé ndax bu amee lu nekk ci yow ci kàttanu suñu borom su amee li nga xamante ne dafa nekk ci yow soo ñëwee sama biir néeg day day day manifesté wu loolu yàlla moo ko dogal maanaam bu amee lu nekk ci yow soo ñëwee ci man loolu day manifesté wu loolu suñu borom moo ko dogal bu ko defee ñu daal di daanu say ma wax yow la kan mu ne man la Jean kon déjà gis ngeen jinne la. xale bu jigéen bi am na treize ans jinne bi am na vingt deux ans kon mbokk yi gis ngeen lii lu doy la lu garaaw la parce que yàq na njàngam moo ngi doon liggéey salon yàq na salon bi lii dafa doy lii nag moo nekk ci dëkk bi yow ban melukaan nga yor. su ma neexee damay doon xale su ma neexee damay doon mag. kilifa si kanamam. gis ngeen jinne dafa garaaw bu ko neexee nekk mag su ko neexee doon xale suñu boroom moo leen may suñu borom dafa leen bind ci safara. Iblis xam ngeen ne jinne la moo dàqoon jaamu yàlla jaamu na yàlla ba yàlla ba yàlla jox ko ay garaat yàlla jox ko ay garaat fekk jinne la yàlla sàkk maam Aadama ne Iblis ne Iblis. sujootal maam aadama iblis gis boppam ne maam aadama moom ban la non moom moom xal la non du ma sujootal ban mu tonganteeg yàlla yàlla rëbb ko mu ne yàlla lépp lu ma la liggéeyal ci lépp lu ma la ci àdduna bi fay ma ko yàlla fay ko lépp fayee ko safara mu ne ma incha allah yàlla bu soobee yàlla safara dana fees dell ay doomu aadama moo waral gis nga léegi dëkk bi dafa yàqu jigéen ñi dañuy naan sàngara ñi dañuy tux dañuy def yi bon njaaloo yi dafa bari ci dëkk bi yi bon yi dafa bari lu waral loolu ndax iblis njabootu iblis yi ñoom ñoo tasaaroo suñu biir yàq àdduna bi léegi nga gis mbir yi bari am c'est lu c'est grave tuub loo dugal diine lislaam loolu suñu borom macha allah moo ñu ko jagleel dégg ngeen kii 13 ans la am 13 ans maanaam xale la waaye xam nga ne jinne bi yàq na ko yàq naa fa niram parce que nee na am naa ak moom doom ba benn doom bi dellu nee na amaat naa moom beneen doom dèjà instant bi nii moom dafa ëmb ëmbum jinne jinne ko ëmbal maanaam biiru jinne la biir maanaam dafa biir du biiru nit biiru jinne parce que dafa baax ñu leeral nit ñi xam léegi nag gis ngeen <laughs> loolu lu garaaw la yooyu yëpp nag ci émission Thierno Moule ci fajum Thierno Moule ngeen di xamee loolu ngeen di déggee yi ni mel ndax nag macha allah ñun bu ñu jàppee jinne danañ ko wax loo mu wax danañ ko jëfloo mu jëf dana wax lépp pour doomu aadama jël ci expérience jël ci bopp parce que gis nga kii amagul jëkkër mu ëmb jinnee ko ëmbal ëmbaloon na ko ëmb bi tuuru nee na weeni di génne soow jinnee wax waxuma léegi nag nee na instant bi ni xale bu jigéen bi dafa ëmbaat kon gis ngeen ne loolu dafa garaaw dafa garaaw léegi moom fu mu nekk nii doom bu lan la ëmb fu mu nekk nii sigil wàcceel sa loxo yi wàcceel loxo yi waaye loxo yi kay du ko mën a waxal doom bu góor doom góor waaw dégg dafa ëmb doom bu góor doomu lan la ëmb doomu jinne mais jinne bi nee na bu wasinee moom du gis doom bi am na bëri na jigéen ñi nekk fii amuñu doom ak seen jëkkër waaye ñoo ngi am ak doom ay jinne wax naa ko fii yoon yoon maanaam suñu jigéen ñi ñoo ngi wasinal jinne yi maanaam da gis ne jinne yi ñoo leen di gën a may doole parce que suñu njab suñu jigéen ñi ñoo leen di wasinal ñoom ñuy bëri rek di bëri rek di ñu gën a bari parce que boo xoolee jinne yi bu ñu dajalee doomu aadama yi ñun bu ñu dajalee jinne yi dañuy wër juróom-ñaari yoon maanaam jinne yi moo ëpp nit foofu bu ñu dajalewoon monde bi nit ñi jinne yi dañuy wër sept fois dañuy wër maanaam seen bëriwaay dañuy wër cette fois kon jinne moo ëpp nit kon gis ngeen ne lu grave la léegi nag ñoo ñu ëpp en même temps ñoo ngi leen di produire seeni njaboot xam nga ne c'est grave c'est grave da ngay calculer fii am na jigéen ñu bëri dañoo am ay doomu jinne waaye duñ ko mën a xam parce que duñ ko mën a xam te soo ëmbee yow jigéen bi doo ci bàyyi xel parfois da ngay dégg benn jigéen ne man dama santé dama mel ni lu ëmb quoi sama biir bi waaye après ma jékki gisaatu moom biir bi daal wàccaat chaque jour jigéen ñi wax ma ko ma ne la ma ma ma xam ma xam li may xam noppi ah <laughs> xam nga ne ma xam ne ne kii <laughs> yàggul ba mu wasi ne lay jinne waaye doo ko ko wax parce que bu la expliquer da ngay xam mais da ngay noppi doo ko ko wax xëy na bu ñu seetaanee vidéo yi ci la ñuy yeewu ñu xam ci loolu kon c'est grave c'est grave maa ngi yeete maa ngi yee nit ñi ñi ñaa ngi apprécier ñi ñaa ngi may woo fu ne di ma ñaanal di ma gërëm maa ngi leen di sant yéen ñëpp aussi ñi apprécier bu baax a baax nii lañ fi nekkee maanaam di leen dimbali di leen yee seen adduna ngeen xam seen i mbir parce que c'est important ndax lii dafa garaaw lii maanaam buñ la ko buñ la ko wonul comme nii doo mën a xam c'est important léegi gis ngeen fu mu nekk nii déjà ci nebaa ngi nii léegi yow di nga ko bàyyi ah waaw di nga ko bàyyi ah. na dina ko bàyyi dèjà kii xaw ma mbokkam xaw ma fu mu jógee xaw ma fu mu cosaanoo moom nee na ma dèjà Casamance la jóge loolu la ma wax ñoom Casamance lañ dëkk moom ñoom ñaar lañu fii lañ ñëw dèjà gis ngeen parfois nit ñëw fii daanu doo xam fu mu jógee doo xam mbokkam doo xam ku mu àndal. bëri na ñi ñi nga xamante ne nii lañ leen di gisee jàppale leen tuubal leen génne jinne ci ñoom faj leen ñu dem. tootoo leen gisati loolu dafa bari ci dëkk bi ñi ñuy dimbali comme saa comme nii rek déjà moom xamuñu fu mu jógee nee na Casamance la jóge jinne bi fexe na ba jëlee ko foofu xaw ma moom lan moo tax moom mu ñëw fii bàyyi ay mbokkam Casamance. maa ko bëgg mu sori leen. Ah. sa loxo yi. yaa bëgg mu sori ay mbokkam. waaw bëgguma mu xool leen sax. léegi xale bu tuuti bi am 13 ans. nan lay bàyyee papam ak ya papam ma ngi dund. déedéet. yaayam ma ngi dund. déedéet. gis nga nee na papam ak yaayam dee na waa sànq loolu la ma waxoon papam ak yaayam dee na léegi xale bu xanaa yoru fa ay ay mbokk ay ay kii yoru fa ay mbokk. ankay. waaw ay bàjjanam a ngi fa. ay bàjjanam a ngi fa. maa yàq xelam. yaa yàq xelu kan. ni ko demal Dakar nga liggéey. demal Dakar nga liggéey jógal fii yëpp village bi. Mm-hmm. waaw. baar doo ko xiir ci bon rek doo ko dugal ci lu bon. des fois dinaa ko dugal mais du mujjee dem day nelaw. Ah. mbokk yi dégg ngeen lii xale bu jigéen bi 13 ans la am moo ngi dëkk Casamance waa Casamance ñoo ngi leen di nuyu bu baax a baax ki ngeen seen seen doom a ngi nii de ngeen 13 ans la am papam deena yaayam deena léegi ay tantam la fa nekkal ak na mag nijaayam jinne bi daf koy. dëddale ak ñooñu ne ko demal dakaar léegi xale bu ndaw la 13 ans mu jóge ka mu jóge Casamance ñëw fii ak benn xaritam ñu luwe seen ne gis nga xam nga <laughs> c'est grave déjà jinne dafa graaw léegi nee na daf koy bëgg xiir ci lu bon mais kii day bañ day nelaw déjà bu doon ñi nga xamante ne amuñu woon sens sax daf lay dugal ci lu bon ngay tux wala ngay naan wala ngay dorogew ba fekk gisoo yaay gisoo papa gisoo ku la tere gisoo ku la ne bàyyil gisoo koo ragal c'est grave ci lii lañ nekk di dimbali askan bi voilà gis ngeen loolu ah an bi rek ci laa nekk macha allah di sant yàlla bu baax di julli ci yonent bi léegi nag yow sigil hé sigil est-ce que loolu rafet na nga jëlee ko ci ay mbokkam indi ko Dakar fii hmm? moom xale bu jigéen demul fenn nga luweloo ko nekk affaire yooyu ah ah rafetul waaw léegi nag loolu moo gën ci man moo gën ci yow jinne bi waaw bu dul loolu seen kër dañ koy protéger ah. te bëgguma loolu ah, bu dul loolu seen kër dañ koy protéger te yow bëggoo loolu waaw seen waa kër xam nañ moo ngi Dakar dem na woote na woote na seen waa dëkk waaw. xam nañ moo fi. xam nañ moo ngi fi léegi mais ñoo ngi koy woo pour mu ñibbi xale bi fan yi dafa bëgg ñibbi de waaye bëgguma koo may pour mu dem. dégg ngeen loolu lu grave la dégg ngeen xam ngeen na léegi yii dafa yéeme lu doy waar moo xew fii Sénégal à cause de jinne jinne yi dañoo garaaw maanaam lu doy waar. gis ngeen kii demul fenn treize ans waroon na nekk di jàng def ay étitam yàlla dimbali ko waajuram yi génn nañ àdduna mu jàng ba am xam-xam ëllëg mën a jëriñ boppam jëriñu waa këram mën a di fàttalu ay waajuram mais gis nga jinne yi dañ koy dugg di ko jéem a yàq di ko jéem a yóbbu pour yàq ko pour yàq avenir am ngir lan ngir seen personnel boobu ngir seen bëgg-bëgg ñoom seen personel maanaam seen bëgg-bëgg ñoom jinne yi maanaam seen intérêt personnel c'est grave moo ngi noonu kon Thierno Moule moo ngi noonu macha allah moom dégg ngeen lu wax fii defe naa ne fii leer na amuñu leneen li nga xamante ne ana dafa dem Fata dafa dem waaw kon gis ngeen ne lii lu leer la li nga xamante ne macha allah mbokk yi moo ngi noonu macha allah. kon xam nga ne kii <laughs> yorul lu mu fayee ah <laughs> eh la kan yow la kan gis ngeen fawfawlu fon nangue amaru yawhiru nangue inna allaha anna allaha pilli baadi bashiran jinna day jeeman akasa gis ngeen ah day jéem a naxasaale quoi du gis ngeen action bi ah daf ma doon jéem a nax pour ma ne jinne bi génn na fekk génnul wala yéen gisoo leen action bi ah comprendre ngeen daf ma doon jéem nax pour ma ji jinne bi génn na <laughs> loolu la bëggoon loolu la buggoon dafa daf ma buggoon jéem a nax pour ma ne jinne bi génn na fekk génnul merci eh, jinne bi mboŋ na de daf ma doon nax daf ma doon nax gisoo mu ne kii kal la mais di defaale nii ci suuf gisoo leen ko muy defaale nii <laughs> daf ma doon nax jinne bi daf ma buggoon nax maanaam ma ne noo kii génn na fekk génnul affaire expérience la ma doon la ma doon jaay <laughs> jinne bi mbong na de daf ma doon nax daf ma doon nax munoo ma nax nag yow man yàgg naa jàpp ay jinne gis ngeen lii tamit dafa baax nit ñi xam jinne bi dafa ma buggoon nax dafa dafa ma doon jéem wax ne maanaam dafa doon doon wan ne génn na fekk génnul maa ngi wax rek mu jékki-jékki ne fii lan la su ko defee ma ne jinne bi génn na fekk génnul mais gisoo après loxo bi di vivre di def ni soo ba ma yuuxoo rek gis ngeen lii foog ñuy seetaan aussi ngeen di du ngay seetaan vidéo kese doo comprendre foog ngay comprendre sëriñ bi action yu muy def yi ak nu muy jëflante ak jinne yi dafa am solo li may def foog nga koy comprendre parce que gis nga jinne bi dafa ma bëggoon nax léegi ni mais mënul sotti waaw calculel kii treize ans la am jinne bi dugg ko nar a yàq addunaam xam nga ne lu doy waar la treize ans war a jàng pour papam gaañu na yaayam gaañu na boog mu mun a dimbali boppam ëllëg non jinne bi daf ko déddale ak mbokkam yi ne ko demal dakaar xam nga dakaar moom fii mooy frontière yàqu boo amul chance rek da ngay yàqu mun nga dem ci baar yi di naan di tux wala nga dajante ak benn kàccoor bu yor xaalis jël la utal la appartement di la financer di la tëddee di la yàq rek après nga yàqu mu lay dugal ci tux di naan xale yi jigéen ñi bëri noonu la ñuy tuxee noonu la ñuy naanee noonu lañuy defee lu bon parce que dañuy doon ñoom kese du ñu am ku leen di dimbali du ñu am ku leen conseiller su ko defee nag après nga nga jaar noonu yàqu sa laay fi yàqu sa àdduna yàqu loolu mbokk yi lu doy waar la lépp nag jinne yi ñooy baas yi baas bi yëpp jinne yi la maanaam jinne bi moo ci yi bon waaw kon moo ngi noonu c'est grave mu ne lii lu garaaw la treize ans yow nga ne xale bu jigéen bi ñaata at la am treize ans ah ans la am nee na treize ans la am jommi ngeen walla jommi woo leen ku am question bu bëgg a poser foofu mën na poser ci yéen yéen ñiy seetaan ku am lu bëgg a wax mën na laaj ñu wax c'est important parce que lii c'est important instant bi adduna bi yëpp ñoo ngi siifur am nañ ay partenaire ay partenaires yi nga xamante ne euh, waa info xibaar mbokk yi nañu jàpp info xibaar nañuy seetaan info xibaar soo bëggee am xibaar yu leer seetaanal waa info xibaar ak TNS TMS TV moo leen di jox vidéo yi leeri macha allah Cheikh caméraman ñoom Alseeni taalibe yi fii ci kër gi ñëpp macha allah ñoom.